Ousmane Sonko day taxaw fii naan éthique di wax naan ay noo ku jóge fii dem pouvoir xam nga traître nga tout tout tu mais tey jii ñi jóge pouvoir dem ci moom moom noonu la leen tuddee on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. ñen nga jàpp ñen nga jàpp ne ñoo jóge pouvoir tey dem. ci non y' beaucoup de gens yoo xam ne chaque jour nga gis ci internet bi wala ci presse bi ñu ne diw jóge na APR dem na ci Ousmane Sonko y' a un fii dem na ci Ousmane Sonko. Moussa Diop barki démb gis nañ ko ak ñu toog xam nga lu la bëgg expliquer mhm. mais tey jii su fekkoon ni kenn moo jógee pouvoir moo jógee ci opposition dem pouvoir comme Idrissa Seck ni mu ko ñu ne transhumant la mais loolu transhumance lañ ko lañ ko mën a tuddee te ba Ousmane Sonko su fekkee éthique lay woote éthique bi muy woote nii tey jii bu demoon ba jël dëkk bi man xam naa ne moom chef de quartier mënu ko nekk du ko doon fii Sénégal lu tax parce que xam naa ko koo xam ne dem na ba présenté wu présidentiel non xam nga Sénégal ji fi mu toll nii gën a fës ci opposition bi non Sénégal du ñu fal ku Sénégal bu ñuy fal dañuy fal nit ku yaru xam nga Macky Sall en deux da nga jàpp ne Ousmane Sonko yaruwul. Ousmane Sonko day critiquer Sénégal yi ku ko critiquer ñu saaga la ay saagakat la dajalee ci internet bi ku wax Ousmane Sonko dara ñu saaga la te Ousmane Sonko chaque jour ci dingan nit ñi la nekk chaque jour mu dingan nit di saaga nit ñi di leen xas te ku ko tudd ñu saaga la. lan mooy sa problème ak Ousmane Sonko. non parce que dama doon jeune ñu bokk génération ma gis ni muy doxale neexuma ma xam ne ni muy doxale baaxul. su waxee loo xam ne du yoon wala du dëgg ma génn nii li mu wax du dëgg parce que tamit nit ñi bul profité ci malheuru nit ñi parce que nit ñi chaque jour dañuy wax nii li ñu li ñu li ñu dal pouvoir moo ñu ko teg non est-ce la mm-hmm. fii Senghor nekk na fi ñu ne baaxul Ab euh, Abdou Diouf ñëw ñu ne baaxul Ablaye Wade ñëw ñu ne baaxul Macky Sall nekk fi ñu ne baaxul sénégalais ki baax ci moom mooy ki faloogul mm-hmm. est-ce la gis na nit li nga am da koy jox valeur fonk ko Ousmane Sonko day toog di critiquer état bi di critiquer nguur gi di critiquer ay nit te ku ko critiquer loolu Sénégal yëpp xam nañ ko ñu saaga la est-ce que la mhm. loolu c'est de la dictature mais tey loo gisee tey waa APR yi dem ci moom ndëgam moom tey nga ne yarwul wala am na yi muy def yoo xam ne nawlu woo ko te waa parti du pouvoir di dem migré ji ci Pastef no xam nga tey ji euh, nit ñi yaa ko tuddee migré ku nekk ak fi ngay dem. tey am na ñoo xam ne Espagne moo la neex am ñoo xam ne France moo la neex tey ñu nekk ci nguuru Macky Sall ànd ak moom doon ko jàppale bu ñu jàppee seen bopp ay frustré mer dañuy dem ni ah peut-être kii moo gën a nekk ennemi ñi xaaral ma dem ànd ak ñoom loolu suñu la ko accepté dangay ngay nangul ñeneen ñi li li nga xam ne tamit ñoom dañ koy def parce que réew mi dafa am benn feebar boo xam ne dafa feeñ ci àddina mi coronavirus daaneel àddina bi yëpp seen économie tey jii ñu dem élection en 2019 Macky Sall gagné leen sa Seck jël deux moom mu jël trois te trois yow tey boo doon noté sa doom sur cinq mu jël trois <laughs> doo ko félicité parce que trois la jël ok donc nag tey Macky Sall raw la fuuf ki topp ci moom raw la fuuf ëpp la expérience politique gën la yàgg ci réew mi tey ñu xam ne économie àddina bi yëpp dafa daanu Macky Sall woote dialogue national yow nga ni demoo waaw ña demoon dem toog waxtaan ni ah réew mi dafa dafa bëgg a dem ci nërmeelu ki nekk na fi premier ministre nekk na fi lu nekk am na expérience mu ne dafay ànd ak président liggéey ñu dem yow nga bëgg a taxé ñooñu de traître léegi yow ñeneen jógee fële ñoo xam ne dañ doon liggéey ak Macky saal mu jox leen ay poste de responsabilité xëy dàq leen dem ba fi li mu leen dénkoon doyatu leen mu récupéré ko Macky Sall wax na ko ci benn conseil des ministres nee à chaque fois que je change change de gouvernement je perds des amis parce que da am nit koo xam ne da ngay am ci confiance yi moom fal ko di ko fay ay millions jox ko oto jox ko responsabilité yi mag nga xëy si suba teel dindi ko mu braqué wu jàkkaarloog yow di la attaque loolu dafa bëri fii soyez logique nit ñi ñoo war a gore man contre ma la personne de Ousmane Sonko ni muy doxale la contre. ci ay sénégalais lañ ci réew mi lañ dëkk. ci biir loolu yaa ngi wax sànq ki Macky